bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa lubbi waftaha rabbi liya fathan mubinan laa yura misliya mbokki daare soppe ma man ngaari asalaamaaleykum jotaay bi di jotaay laaj ak tontu tabarakallah ñu ci ànd ak talaata di nuyu ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci laaj yi eh, niñ koy faral di waxee rek ñu gën ci am pëseef ndax dina ji moom li ñu ngi koy laaj di ko tontu mu fi gën a des waaye su laaj yi wàññeekoo rek ngir yittee àdduna yi bu yàggee li daloon njëkk ñi dañuy dal waaw te alayhi salaam dafa waxoon Seydina Ali ne ko nga laaj benn masala ñu tontu la ko wala ñu laaj la benn masala nga tontu wala nga génne benn masala moo gën fuuf ci yow ñu xëy may la million waaw nga xëy joxe masala moo gën ci yow ñu xëy may la million kon eh, lu war a yaatu la laaj bu njëkk bi nag bàcc ma sax mii dajale laaj yi nee na listixaar ci nii ñu koy defee ndax lislaam moo ko santaane waaw mbokk mi istixaar lislaam a ko santaane waaye biñ jàng ci sunna mu santaane ko kenn ku ne man ko defal sa bopp bii na xëy na ijtihaadu ay nit yàlla wala ballaloo gi ñuy balloo ci sunna xadis ndax léeg-léeg day am yoo xam ne dañ koy séggee ci sunna mi waneen yoon te du tee ndax man sanna sunnatan xasanatan man na la wax sunnatan xasana mooy ku fësal walla nga segg wala nga génn saw déggiin ba nit ñi mën cee jariñu danga nga ci am tiyaabo bii ñuy def na nga xam ne xëy na dangay jàng saare alquran fekk sa xol set na sa jëmm set na yàlla wan la dara te muy doon loo xam ne kenn mënu ko dindi ci àdduna loolu ñi ko yàlla may la ko yàlla may bi ñuy jàng ci sunna nag kenn ku ne mën na ko defal sa bopp mooy am nga soxla wala bëgg ngaa dugg ci dara nga jàpp ba sell julli si ñaar rakka tàllal sa borom sa loxo ne ko mbir mi may bëgg a dugg moo xam da ngay jënd kër da ngay jënd oto da ngay bëgg a dugg ci liggéey da ngay bëgg tukki daa am koy seqal ab liggéey daa am da ngay bëgg a soxna lo mën def ci aduna rek ya xam nga ne yalla li may bëgg dugg dal ya xam man xawma ya man mënuma ma nga lay tànnloo su fekkee moo gën ci sama diine gëm ci sama aduna nga yombalal ma ko su dee gënul ci man gënul ci sama diine gënul ci sama aduna nga jafeel ma ko su ko defee nag doxi jéego jëm ca soo doxee jéego jëm ca mu yomb nga xam ne yàlla tànn na la su jafé nak nga bayyi te xamni gënu ci yow waye li gëna a bëri nag ñun balañ ko def da ngay fekk nga engagé wu fekk nga bëgg ba nopi bu dé soxna wala di demee xam na nga koy bëgg bëgg go xamni bo boo ne bu yombé mm, ma jël bu yombut ma bayyi léeg nga dem ñu dakk la wala ñu jox la ngant xalé bi day jang yoy nga lank nekk ci rek di dar dari fekk yow da nga tanal sa bop so tanalo Yalla waaye la si xaar pire moy amagoo ben engagement bu dëgër léegi laaj yàlla soo demee mu yomb nga jël soo demee mu jafe nga bàyyi seeti feneen kon loolu mooy li saxaar ku ne mën na ko defal sa bopp nit ñi nag mën nañu ëppante cër ci yàlla nga xam ne xëy na diw mii su la ko defalee moo la gën a set gën laa jeg yàlla su la ko defalee mën naa mën naa gën yow bi ngay defal sa bopp waaye kum neex nga defal ko sa bopp beneen laaj mi nee na ni Saalum di def léegi léeg boo bayee ba mbay mi ñor nga santaane ab liggéey moo xam góob la walla deqi su nit ñu wàccee bu dee góob la ñuy tànn ay gubi dugub yóbbu bu dee gerte la ñuy tànn ay tar yóbbu waaw tar yooyu ñuy tànn te duñ ko xayma ndax moom daa war a bokk ci azaka ji wala déet waaw lépp lu ñoree ci tool bi des ko war a azakal soo santaane liggéey su nit ñi ñëwee Bala kenn tan yow xaymaal li ci tool bi wala li ñuy tànn bu paree nga ne diw ñaata gub nga tànn wala nangam su ko defee nga xayma loola booy génn azak nga boole wala ko ci maye te génne woo azaka kon day mel ni génne nga àq jàmbur maye te azakaaloo ko lekk nga àq jàmbur kon su demee ba yëfi ñor azaka warna ci su la neexee nga nga nga xayma génne azaka soog a maye ya ngay maye wala wàccante léegi yeneen nangam waaye daal bu nit ñu yóbboo te azakaaloo lan yóbbu ah yégal def ngeen moo tax mag ñi bu njëkk même suñ daan daggal seen fas yi ci dugub jë nga xam ne góobaguñu waaye ñor na rek ñu daggal fas yi suñ ñëwee loo dagg suñ ñëwee dañuy buñ defee fukki gub dañuy génn benn gub def ci saako boo liggéey boo daggalee fas yi ñu ne la euh, compter ko fukk yu génneel benn def ci saako bi ñu maandu woon lañu moo tax ñu ñu jege yàlla lan waaw ñoom noonu lañ ko daan defee nga xam ne la fas yi di lekk sax nga xam ne fukki gub lay doon ak ñaar fukki gub ñoom dañ ciy bàyyiwaale xel azaka yi rawat na nag bu ñu ba wootee ngóob ba ñëpp ba ñëpp ñëw kon loolu azaka war na ci piir beneen bis topp nee na dugg ci jàkka te julli woo toog bañ noddu nga soog a julli ndax noonu la war demee déedéet war demee noonu ndax soo jugee si jàkka loolu ñuy julli googu moom la ñu tuddee tahiyatul masjid mooy da ngay nuyu jàkka boo ko ci nit rek boo duggee néegum nit fekk ko fa nga toog ngeen waxtaan waxtaan yàgg ba yàgg nga ko ah xaaral ma nuyoo nga xam ne waxtaan ngeen lu yàgg nga soogoon a xaaral ma nuyoo xam nga loolu xel nangu ko boo duggee rek a nuyoo ngeen soog a tàmbalee waxtaan kon soo duggee ci néegum yàlla bi itam nuyoowal sooy toog nga soog a toog booy saabal nga soog a saabal waaye mënoo dugg toog ba mu neex la wala bañ noddu ngay soog a jóg loolu njuumte la boo duggee rek dangaa war a nuyoo mooy nuyoo. nit soo dajee ak moom da koy nuyu ngeen soog a waxtaan waaye ngeen waxtaan ba ci digg ma nga ne nga ne ko kon léegi baal ma nuyoo wax na asalaamaaleykum xam nga loolu xel na ko kon lii la gis na ñu bari ñu ko def moo tax la saa saa waxoon na ci hadis ne ida daxala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yarkaa bu kenn ci yéen dugg ci jàkka toog te julliwut na julli ñaar moo tax sax bu dee ci fuqaaw yi Maalik dañuy wax ne buñ salaatoo bëgguñu ku julli ñaar rakka maanaam def taxayut masjid moo tax soo ñëwee da ngay julli ñaar rakkay fajar yéene waale ci taxayut masjid moo tax euh, lu am doole la mënta ñàkk laaj bi topp nee na joxe guro ak maye lan moo leen teqale léegi léeg-léeg ñu ne joxe naa guro waaye maye guñ ma ndax joxe guro moom ab fas sëy la wala déet waaw joxe guro de ci natt bu dee ni ko téere jàngal daanaka labat rek lay war a tolloog ndax sëy fu ñu ko tuddee rek fase taxaw ca wet ga xam nga musu musu ñoo gis ku joxe gura ba mu yàgg mu ne dama fase soxna sax ndax amagoo fa soxna su fekkee joxe gura léeg-léeg mu niru séeréer ndax euh, boo ne bëgg naa ñu ne ayca loolu labat la tudd gura gi xëy na luy fësal ab labal la rek doon temps saa waxoon na ne su ngeen di labat ngeen ko nëbbu su ngeen takkee ngeen ngeen fësal ko waaye joxe gura daal labat rek lay war a tolloog mooy bëgg naa ñoom ñu ne waaw ñu nit nangu nanu léegi nag nañ xool bis ba ñuy fas sëy ba wut ay seede tudd ci nag yu demee noonu kon joxe gura labat lay lay tekk biñ la mayee nag nga soog a am soxna moo tax sax boo joxe gura doo sañ a euh, dem ca soxna sax du ngeen sañu wéet maanaam liñ la tere woon liñ la tere woon laataa nga koy jox gura même soo ko joxe gura loola la ñuy wéy dina tere ba tey buñ la mayee nag nga soog a am soxna waaw laaj bi stop neen ndax ki ñu fase te fekk booba dafa nekk ci jamonoy mbërëk ndax day tàmbali da wala déet wa day tamale dajja waye du lim mbërëg moma biñ la fassé ci jamonoy mbeureuk lab ji ci top ngay tàmbalee lim bolé ko ben mbeureuk muy nga am ben père soko defaté nga amat benen père so gisaatee lab ok soko defé nak nag boo mbeureuk mbërëg am muy ñetti mbeureuk soké ko gis kuy gis kuy kuy dawoo ñetti lab su fekkon dañ la fassé nak ci jamonoy lab mom doonte ni bis biñ la fassé ci la lab gi jeex nga gis mbeug sax da ngay limane lab gi kon buñ la fasee ci jamono mbërëg doo ko lim waye buñ la fasee ci jamono lab da ngay limane lab go nga xamne buñ la fasee won tay ji nga tok tuti gis mbërëg da ngay japp ne kon am nga ben lab am nga ben mbërëg yaang ci ben mbërëg bu jeexé nga am inter so soo ko kon loolu non la mel loolu tax bëgguñu ñu fase jigen ci mbërëg ndax du ko mëna du ko mëna limalé laaj bi stop neena na suñ tubaa dafa wax ne dafa wax ci muktadabun as-sighar amma jami'ul anbiya wa rusuli faqadun min al ulufi ya rajul wa adadu rusuli ya un summa jim baadahuma muhmalu sinin faaya mu ne léegi ndax yonent yooyu maanaam anbiya yooyu ndax ñëw nañu wala ñoom ñëwaguñu ndax bu dee yonent yi moom mooy almursaluna moom xam na ne ñëpp ñoo ne alayhi salaam moo ci mujj waaye anbiya yi waaw mbokk mi ñaar yooyu ñoo ñoo ñoo ñoo tolloo maanaam tëj tëggi alayhi salaatu salaam la alayhi salaatu salaam moo tëj limub yonent yi moo tëj limub ñu solo ñaar la al anbiyaaw ak al mursaluun anbiyaaw mooy ñi yàlla jox xam-xam bi waaye woote woolu leen maanaam waxu leen nu woote mursaloon yi mooy ñi yàlla jox xam-xam ba noppi woo ne leen woote leen maanaam woo leen nit ñi ñu jaamu ñu gëm ñu nàngam soo xoolee téeméer junne yonentu ak ñaar fukki junne yonentu ak ñeenti junne la yàlla yónni léegi limub ñi nga xam ne ñooy mursaloon yi eh, ñetti téeméer la ak fukk ak ñett ñi ci des mooy anbiyaaw yi waaye ñoom ñëpp nag ñëw nañ njëkk ale salaatu salaam alayhi salaatu salaam mooy xaatimalu anbiyaa yi wal mursalina moom moo tëj limub yonent moo tëj limub ñuñ solo tabarakallah kon ñëpp ñëw nañ laaj bi topp nee na ku bind sa soxna leetar ne ko fase naa la ndax ca bind ma rek la fasame tab bi wala faaw mu jot waaw ni ko téere jàngalee day soo bindee leetar te ba ngay bind leetar ba ngaa dogu ci ne soxna si daal comme moom nangam nangam xaaral ma fase ko maanaam nga dogu ci fase gi soo ko bindee rek fase gi tàbbi na waaye su fekkoon da sikki sàkk naan ci la xam naa bu moytu dal dana ko fase dal waaw waaye xa xaar mu bindal lettre bi rek suma paré waxtaan ak diw ba xam kon ca mom li fek jotut ca lettre ba fase mi wut waaye bu dee rawat na bu dee soxna su jàng nga bind ko teg ko wala nga bind ko sa téléphone mu ñëw gis ko ne la ah, jaay eh, li nga bind nii de man dafa maa jaaxal nangam fase mi tabbi moom bu ca xasee jot rek mi tabbi su fekkee dogu woo ba nga koy bind su dee nag da nga da nga ne kii daa ma dama koy fase xaaral ma bind lettre jox ko diw mu yóbbu wala xaaral ma bind message bi rek boo bindee message bi ba noppi rek bind ma ak wax ji ñoo yam moom boo ci dogoo fase am na boo doon kaf fase am na waaw dog kon moo tax looloo tax fase alayhi salaatu salaam ne li yàlla daganal te gën koo bañ mooy fase bëggul ko kaf jëm ca nee na su nit fase soxnaam ba noppi bëgg koo fayle soxna si bañ wala ay bokkam bañ naka lay def waaw foofu boo demee ci Mouhamad Bichar euh, borom ashalul masaalik def ne ñoom sa amuñ ci lu ñuy bañ ak lu ñuy nangu fay li moom ci lox mook sëy baayam ci loxol borom kër la nekk ak fasema su su su su su bëggee fay li bu soxna sa nangoo fay li dana am su ay bokkam nangoo fayal dana am buñ nanguuti fayal dana am moom su ne sama soxna damaa bëgg mu mu dellusi wala sama soxna dama koo bëgg a fayli moom sëy bi dellusiwaat na su ne woon cell nag ba daja jeex dañuy jàpp ne sëy bi baa in na mooy mooy buum gi dagg na su ko bëggaatee su fekkee benn fase la wala ñaar day ñaanaat ñu mayaat ko mu soog a am soxna mu joxe cen soog am soxna waaye su fekkee nga xam ne yëggul ci ñetteelu at dafa gisagul ñetteelu baax buka ko bëggee rek bu ko bu ko bëggee fayli rek da koy fayli moo xam soxna si nangu na wala nanguwut moo xam ay bokkam nangu nañ wala nanguwut kon fayli ci loxol jëkkër rek la nekk saa su bëggee mu am. beneen bi sopp nee na àtteeb anniversaire anniversaire yi ñuy def ndax diine nangu na ko ah anniversaire de mooy fàttaliku bis bu maanaam xew-xew bu amoon. mooy bis bu dellu si nangam ji xewoon na le premier janvier dellu si na ñu koy fàttalikuwaat loolu nag lu diine xam la ndax alayhi salaatu salaam gën ak jamonoom la ñuy màggal muy gàmm loolu mooy anniversaire Cheikh Ahmadou Bamba tukkeem ba la màggal mu moom la ñuy fàttaliku muy màggal waaw koroog la Bamba gonte Mbàkke Baari tàbbi ci géej li xidmat muxtaari waaw taarix ba junneeg ñetti téeméer la naka na ko sëñ Moussa ko waxee taarix mooy junneeg ñetti téeméer waaw ak fukki at ak ñett lim bi lee waaw su ko defee loolu mooy anniversaire bu ñu xoolee it euh, même màgg gu njëkk gi mooy bi Sëñ Tuubaa génnee jamono moom daal bëri na lu ñuy màggal ci lislaam te fekk mbir ci xewoon boo xoolee tamxarit ko la ndax euh, xew-xew yu bari yu ci xewoon yenn yonent yi laboon fa ñenn ñu musal leen ca ñenn ñu tuub yàlla nangu leen moom daal mooy fàttaliku xew-xew bu amoon te bis ba dellu si rek te loolu diine xam na ko piir diine xam na ko piir boo xoolee ba ci al isra wal mi'raj mooy kazu rajab mooy loola rek te ba léegi noo ngi koy fàttaliku tabarakallah kon anniversaire mooy loola waaye nag mënees na ko segg nag ba nga xam ne du niroog feeti yéeféer yi waaw maanaam ñu ñu fàttaliku ko taazimuhu bi sunnati ñëw toog ah bis bi kat nangam ñun ko daa mel suñ dund gi nangam jàll na ci léegi lan moo ci rafet ak lan moo ci rafetut diw noo jàngatee bis bi mu wax ne ah li ci weesu kat nangam ji rafet na lii mat na yokk lii mat naa wàññi loola nag moo ci ëpp njëriñ moom nga xam ne sa dund gi bu doon fukki at nga war dund benn dem na su dee dañu koy fàttaliku ci cinquième édition bi nga ne ah kon juróom dem na maanaam ñu xam ne daal dund guy jeex lañ gën a jege waaw kon ñàkk naa nangami at lan lan ñuy wax ci ko anniversaire bem sop neena planning planning di ñu ngi def ndax diina nangu na ko ndax xawuta niroog fat bakkan wa planning nak bu fekke nganta ko waral dina an na ci 100% jigen ji dafa opere opere wat ñu ne ko so amate dom du bax ci yow bakkan bi tew la l'islam di gëna fonku ci bakkan bi mi sentu kon dañ lay protéger yow jigen ji na kon léegi man nga def pexé yu tax do am doom waye bi hôpital yi di def nak mom. ñi ñi bari ci ñi ko def jafe-jafe rek la leen di jural kon mané na wut yeneeni pexé mo xam su da ngay sey li waral am doom bu bu waré genn nga moytu wala su da ngay jitt yeneen juntukaay kawas yoy sol ak xeet yooyu loola daal moo gën a wóor di jël luy tax sa règle du ñëw wala di jël looy dugal sa biir yaram nga xam ne ñi ci gën a bari boo ko defee ba noppi benn ngay gaaw a sonn wala ngay miir wala ngay jeex wala ngay am yaram bëpp ëpp yooyu daal gënul te mooy hôpital yi di joxe kon manees na ko def waaye wut méthode boo xam ne euh, doo ci jëlee benn benn ngaañ bi sopp nee na góor ñaari góor suñu julli ak jigéen ndax imam day jiitu ñoom ñaar ñu tax ci gannaaw wala déedéet su fekkee ñaari góor dañuy julli ànd ak jenn jigéen ñoom ñaari góor yi dañuy tolloo waaye imaam bi day jiitu tuuti rek nga xam ne ku ñëw dina xam ne kii mooy imaam bi su fekkee ñetti góor la imaam day nekk ci kanam ñaari góor yi nekk ci gannaawam jigéen gi nekk ca gannaaw jigéen moom saa su ne moom lay lislaam di wax mu féetewoo ca gannaaw kon noonu lañ koy defee bis topp nee na azakaay un million ñaata mooy azakaam mbokk mi soo xoolee boo inventaire xool sa am am yépp ba mu mat nisaab nu mu mën a toll rek diviser ko 40 soo ko diviser 40 benn ba mu lay jox mooy sa asaka tey ji 1 million boo ko diviser woon 40 benn ba 25 mille la lay jox mooy sa asaka bu doon un milliard diviser ko 40 rek benn ba mu lay jox mooy sa asaka loolu nag lu wute naag ni nit ñi njëkk ñi daan génne asaka <coughs> bu njëkk si nit amee alal. bu xoo bu bu bu demee janvier ba janvier dellu si wala mu dem tam xar ba tam xar dellu si wala date bi mu génnoon azak ba mu dellu si yàlla def na daf ko naan xaaj ko ñeenti xaaj nga génne benn bi joxal ma ko miskin yi xam nga kuy génne ñeenteel ba ak kuy génne ñeen fukkeel ba wuute nañ lool moo tax ñun azaka war na noo yomb wax dëgg yàlla comp la rek xëy na yàlla daa xam suñu bëggee moo tax mu defee mu defee leen ko nii ak yërëm gi ni yërëm kon azaka ñëpp ko war a génne te koo génne rek fexe mu teel a génne ci sa loxo waaye génne ko ba noppi téye ko di xomp wala ko fa jaar nga jël mille francs ak deux mille jox ko loola gënut azaka xeex ñàkk ko tax a jóg moo tax soo génnee asaka mu mat cinq cent mille xoolal koo jàpp ne am na avenir u liggéey te amul capital amul doole nga jox ko ko su ko defee moom bu ci góorgóorloo xëy na benn at ñaari at ne war a mën a génne asaka waaye nii ñu koy xompi moom euh, taxut a génn taxut a jóg asaka taxut a jóg asaka beneen bi sopp nee na ku gént ku gént di booloog jigéen waaye daal gis na ni génn benn man yi ba mu yeewoo lan mooy ab àtteem ndax day sangu waaw kooku de laxdar yi dafa waxoon ne euh, ku gént di seeg jigéen waaye ba nga yeewoo dara génnul ci yow dara waru ca waaw man raa fi manaamihi ka annahu yujaamiu walam yaxruj minhu shay'un fala shay'a alayhi kon ku gént seeg jigéen waaye génnewoo dara kooku waru sang waru la dara waru rek benn bi si nee na ko daa gis daa koo xam day jàpp mais benn benn lay jàppoo ndax loolu mën naa nekk wala ñett ñett dañoo jàppoo jàpp benn benn day ka koy def dana bàyyi xel boppam lool waaw Aliou nañ ne mos naa jàpp benn benn daal ne nii la nii nii la ñuy jàppoo jàppuwaat ñaar ñaar ne nii la ñuy jàppoo jàppuwaat ñett ñett ne nii la ñuy waaye benn benn dañoo xam ne ku dul boroom xam-xam suñoo koo jàppoo. ndax soo bàyyee deniir mooy ab digg bu tooyut rek aleyhi salaam dafa waxoon ne bis saaba yi fekk dañoo demoon ci xare mu bàyyi ko fa mu nekk ne leen hee hee ku bàyyi digg bu tooyut safaraa koy tooyal ku bàyyi digg bu tooyut safaraa koy tooyal moo tax boo jàppoo benn benn te bàyyi woo ko xel dëgg-dëgg man naa am digg bu tooyut te waylun lil aqaabi minan naar kon loolu lu mat a bàyyi xel dama jàpp benn benn mën naa nekk waaye nag ka koy def na ko bàyyi xel ba fépp tooy bu fépp tooyee <clears throat> ndax boo xoolee sa ñett ñaari ñett yi saa soo raxasee sa cër ci njàpp ba lépp tooy def nga farata ji ñaareel ba ngëneel la ñetteel ba ngëneel la su fekkee bu njëkk ba tooyut ñaareel ba farat lay doon su dee ñaar yëpp pëyut ñetteel ba farat lay doon kon daal balaa ñaareel ba doon ngëneel wala ñetteel ba doon ngëneel day fekk bu njëkk ba matala cër bi yëpp ci ndox nga xam ne lépp tooy na kon jàpp benn benn mën naa nekk waaye ka koy def na ko bàyyi a baax bis nee na ku giñ ne danaa def nangam wala duma def nangam yàlla nattu la defoo loola wala nga def loola ba nga xam ne kafaara war na ana nag nga koy kafaara waaw alxuraan dafa waxoon ne laa yuwaaxidukum allahu billaxwi fii aymaanikum walakin yuwaaxidukum bimaa aqadtumul aymaan ñu ne mu ne fa kafaaratuhu it'aamu ashrati masaakin ma tut'imuuna ahlikum aw kiswatuhum mu ne zaalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum ku giñ dara yàlla natt amut na nga koy kafaara da ngay leel fukki miskin kenn ku ne nga jox ko ko suur wala nga woddu leen kenn ku ne nga jox ko lu ko jot su dee góor nga jox ko jàllaabe xam xam na tàmbale ci kaw ba ci suuf bu dee jigéen nga jox ko euh, jàllaabe bu wàcc bu ànd ak musuur euh, wala nga woor ñetti fan ñett yi ñooy kafaara ak ngiñ te lu mat a la nag ngiñ même li ngay giñ bu dee dëgg alaaj bi sax dafa waxoon ne ñett da cee ne soo gëñee te muy dëgg day wàññi taar day wàññi wërsëg day gàttalu fan yaakaar naa ne ñett yooyu ku ne bëgg na ko waroon naa jar rek kenn bañ a tudd ndax lafzu jalaala bi baat bee màgg lool ba bëgguñu ñi di ko fooyee di ko wax fu ñu toll am na ñoo xam ne lu ñu wax gëñ te loolu lu a def la fekkee li nga gëñ du dëgg nag alaaji bi saax na ku la safara dafa laa njëkk a kon baata ngoog boo xam ne naan am naa no billaahi wallaahi talaay wala yu demee noonu daal wala billaahi laa ilaaha illaa huwa xayru baat yooyu daal dafa màgg màgg ba nit warul diko café wala mu diko tuddu ci lu mën a doon loolu daal farata pire ñu gëñ lu la ngir di la seedula wala di demee noonu loolu daal moko wara moko wara moko wara gëna a moo ko war a gën a bis da nga gis mu yow 4 jours nga daan gis yoon bi dara di ëpp 4 jours nak ngay def ndax da ngay togg bam mu dagg wala déet wa ko xamne li mo ron sa aada mo xam ñenti fan mo ron sa aada wala ñetti fan wala fukki fan su deret ñëwee nar koo weesu yokkal ñetti fan soo yokkee ñetti fan su daggee nga sangu su daggul nga sangu te jàpp ne ñetti fan yooyee maanaam jàpp ne foofu nag mooy saar bu doon ñeent la nga yokk ñetti fan léegi da ngay jàpp fan mooy sa baax su doon fukk la nga yokk ñett jàpp léegi fukki fan ak ñett mooy sa baax su ñëwaatee ba yegg fukki fan ak ñett te dagg wala mu yegg fa mu yemoon dagg baax na su fekkee da ko a ëpp te fekk defoon nga muy fukk ñaar bu mu weesu fukk ak juróom moom kon ñaar rek ngay doli su doone ne fukk ak ñeenti sa bax ben rek ngay doli mom dal dret ji mom du yàgg yàgg yàgg bu ëpp fukki fan ak juroom su ko defé nak bu dagge nga sangu bu daggu nga sangu te xamne li ci des dret mom lañu wax euh damul istihada mooy deretu jorngeel nga xamne tawat la legi da nga war def fay ji téewut lépp lu nga la tere legi may nañ nga diko def kon non la demé legi benen bi topp neena ki amé mbeureuk ana lan lañ koy tere ki amé mbeureuk liñ koy téré moy yi sañu ta julli sañu ta wor sañu ta wër kaaba ga sañu ta laal alquran sañu ta laal alquran man nako jang na suragalé faté sañu ta dugg ci jakka borom kërëm du sok mom <clears throat> ki yëre mbeureuk <clears throat> ki yëre mbeureuk sañu ta def ben ci ba bo xolé ki jappur amna luñ ko téré ki amé ba amna luñ ko téré ki amé mbeureuk amna luñ ko téré ki amé ba ñaar lañ ko téré mooy mu dugg si jàkka ak jàng alquran loolu ne ay aayay musluwaay la yu demee ndax ki amee janaba janaba ji da <coughs> daa aju ci moom su ko neexee mu dañ léegi moo tax moom ñu tere ko jàng alquran ku yore mbërëg sax tere nañ ko laal alquran waaye su fekkee kuy jàngale it may nañ ko ngànt ndax léegi xale dañuy teel a gis gis régal mel ni 9 ans 10 nga xam ne yaa ngi si digg jàng di ko gis xam nga fekkee 10 10 jours mooy sa baax day yàgg ba moytu da ngay fàtte moo tax ñooñu dañ ko may ngànt mu mu di jàng. su fekkee da ngaa yorul nag dañ lay tere nga julli dañ lay tere nga wër kaaba doo laal alxuraan ndax alxuraan dafa waxoon ne laa yamassuhu illal ku jàpput doo laal alxuraan bu dee nag ku jàpput tey xale lu mel ni muy jàng may nañ ko mu laal ab koy jàngalit comme euh, li muy jonjoog téere day bari te mën naa taxoo njàpp xaw a jafe may nañ ko mu laal moo xam góor la wala jigéen waaye bu nag may gi yem ci biir mbaar mi maanaam kiy jàngale. lañ may muy tiyel xale yak di bindal xale ta du japp waye bu ngeen wacce nga génn dem sa nek bo beugay jang da ngay japp soga saña laal alquran kon xaj lañ la laal lañ la may nga laal yow mi jang wala yow mi jangale ci bir mbar mi bo gene mbar mi du tok sañ ben bis topp neena ki tawat ba la japp ndax dana mën julli waaw dana julli kay su fa ay bokam nekké nan ko jappal su ko mané bu dee daa am ngànt ba mënta jàpp nu tiimal ko su mënta jàpp mënta kii te amul kenn ko defalit bu waxtu julloo jotee rek na julli ndax julli mooy jaamu yàlla gi nga xam ne lu waaye tële tële tële man nga ko yeneen jaamu yàlla yu bari bu nit ñi sàgganee julli doo duñ defal yàlla dara ndax am na ñoo xam ne bañ juddee ba léegi mënuñoo woor ndax tawat yu leen gaar wala yu demee noonu am na ñoo xam ne bañ juddoo ba léegi mënuñoo génne azaka ndax amuñu luñ génnee azaka am ñoo xam ñu doo ba léegi mosu ñoo aj mak ndax amuñu lu ñu demee mak kon lan mo fi dess julli rek mo fi dess julli mom la yalla jox xéet wi ne len li moy seen shaar moy seen doole moy seen ngànnaay moy mandarga mi len di teqale ngir julli motax bo boo yowal xiyam comme mom ñepp ko man bo demee yowal xiyam dañ na né moy passeportu aljana bo ñëwee rek dañ na ana bagage ñi ne mu ngi ñu xol fi julli toll buñ vérifier julli mu jakk ñu ne kii kay léppam jag na suñu vérifié julli jagut nag jëru ñuy xool la ne ndax julli la ñëpp am dafa am yoo xam ne ñëpp a ko bokkale mooy julli koor nag ñenn ñee koy am azaka ñenn ñee koy am aj maak ñenn ñee koy am moo tax ku ñëw rek si julli la ñuy xool ndax dañuy dañuy xam ne moom mooy mooy étiquette bi nga xam ne ñëpp takk nañ ko moo tax aleyhi salaam doon wax ne julli daal nañ jàpp ne mooy suñu pisin lu ñu mën a taq ci bàkkaar bu ñu respecté juróomi waxtu julli yi mel ni bis set sangu nañu juroom yoon ci ndox mi nga xamne ku ci sangu do tax doo takkati bàkkaar kon dal julle ngok lu way teel mom moy jaam yalla nga xamne bo demone bu mënu wo dara dara dara lu xef ak xepi ta sam nga ngi ak yow du la wacc kon julli mom kum kum khas war do la wacc mukk ci aduna lu sam xel dem bis top neena na kuñ euh, kuñ denk alal nga commerce ci ndax dang ci seigne commerce ak la nga ci am ndax dang ko seigne jël waaw fooxaaw yu bari dañ ne buñ la dénkee alal la ca gën mooy nga téye ko ngir sàmm ngir sàmm ngir sàmm kóolute gi aleyhi salaam defoon bi ko joxee alal daf ko denc ba noon yi moom sax ay noonam ñoo ko dénkoon alal di ko xeex bañ ko lool waaye nag xam nañ ne mooy ko jub ki xam nañ ne luñ ko dénk buñ ñëwee fekkaat ko bi muy gàddaay daf ne Aliyun kaay ma wan la ndénkaan yi boobu moom jàngutoon mënta bind bi bi tur sàngama ci nek waye ay morceau la ko defon rek ne ko morceau bu xonku bi diwo ko mom morceau bu wex bi diwo ko mom bu ñuul bi diwo ko mom so xé nga séddale dinkan yépp kon ali sallam nañ ko ko dénki won ak nako borom takke won ci morceau bu non la ko joxal lool moy moy li gëna woor waye bu la bu la yàlla nattoo ba nga yëngu ci nak ngay commerce ci wala nga def ci lanen nee la nga ca am man ko jëfëndiko ndax rësumaal bi bu sankon yow lañ koy top kon la nga ca am mën ko jëfandikoo waaye daal taxul mu gën bi sopp nee na alali jaale ndax des koy miiras alali jaale alali jaale euh, bokkul ca miiras ma ndax miiras ma la néew ba bàyyi la ñuy miiras ku sa ruux rot nag yow fa nga yem foofa nga yem maanaam li nga moom ba sa ruux di rot loola la ñuy miraas waaye li ci des ñii alali jaale ji ñi fi nekk lan ko jaale léegi nag ñoom ñooy xool nan koy def waaye bokkut daal ci alal néew ba ndax néew moom nekkatu fa ndax ba roxam rek dépense sax waratu ko waaw maanaam la ñuy dëjalee la ñuy nangam lépp kenn du ko génne ci alal néew ba kon mën naa am alal yi jaale yooyu lañuy defee dëj bi ak yu demee noonu waaye kenn du ko miraas ndax bokkul ci alal néew ba lu nee na lan mooy kii nee na lan moo teqale iddaay ku faatu ak iddaay ku fase ak iddaay ku ëmb waaw yooyu ñetti àdd yu bokkul ki faatu moom ñoom ñëpp ñoo bokk àdda tey ji xaale bi nga xam ne jotagul a gis baax ak mag mi nga xam ne mi ngi gis baax ak ki ëpp ki weesu gis baax ñooñ ñëpp bu seen borom kër faatoo quatre mois dix jours la ñuy la ñuy àddawu ñeenti weer fukki fan mooy moytu lépp luy ak taar rek moytu lépp luy jaayu moytu lépp luy noos moytu lépp luy tax nit xemem la wala nit di la bëgg loolu rek mooy ànda waaye yu baree bare yu ñu ciy dugal ay aadala rek ay téye paakaak toog jublu tànk jublu penkook talal see tànkat doo sangook doo léttoog da ngay muur say nopp yooyu yëpp ay aadala aada daal mooy wàññ bàyyi takkaay bàyyi diw lu ngant bàyyi parfum bàyyi sol yenn yu taaru yi bàyyi di génn lu dul farata même boo dee liggéey wala di mel ne mën ngaa génn waaye bañ a génn lu dul farata ak yu di mel waaye lu bokkut ak lii rek moom bokkul ci bokkul ci adda mooy adday ko faatu su fekkee kuñ fase la nag te muy ku jotagul a gis baax wala ku gisatul baax ñooñu ñetti weer lañuy la ñuy toog su dee koo xam nag mi ngi gis baax waa kay kooku day toog ñetti reegal maanaam day gis ñetti reegal soog a soog a jeex ki ëmb nag li tax bëgguñ lislaam bëgguñ ñu fase ko mooy mooy su fekkee day soog a ëmb ay daje day yàgg moom suñ ko fasee fekk mu ëmb li fekk imbiwul ay daja jeex suñ ko fase woon nag tey mu am doom tey dañu jàpp ne ay daje jeex na kon mën naa gudd lool waaye mën naa mën naa yàgg lool te yi nga xam ne mu nga kon kon loolu noonu la demee su ko defee su ëmbee nag ci lay soog a nag ah, daw si ñett si ñett ci ñetti laab wala muy daw ci ñetti ñetti ñetti ñetti weer su ko defee laaj bi nee na ku fàtte xunut ba rukkoo ndax diñ ko mën waaw suñ tubaa nee na eh, borom xam bu ñuy wax ibnu xabib nangu na loola wa ajazahu ibnul xabib suñ tubaa andi na ko kon boo xun boo fàttee xunut ba rukkoo boo siggee mën ngaa xunut soog a rotaat dem su jóoti doo rukkoo waat nag waaye da ngay rot rek dem su jóoti nee na ku dugg ci jàkka fàtte taxiyat masjid toog ndax boo ko fàttali ko danga ko mën a indi waaw di nga ko mën a indi di nga ko mën a indi ndax taxul mu weesu da nga ko fàtte boo ko fàttali ko rek jógal nga julli sa ñaari rakka bëggu nag nga ñëw fàtte woo ko toog comme ni ma ko tontoon ci gannaaw nee na daal kuy wax sa gannaaw lu ñaaw ndax di di ko sañ a tontu waaw mbokk mi loolu day xalaat boobu moom xalaat buy dimbale seytaane la nit su dee déggoo ko mu lay wax gisoo ko mu lay def lu dul benn man nay wax sax di la gaaruwaale ndax suñu waa waxoon na ci naaju ju wala qad amru ala laimi yasubbuni wa aifu suma aqulu la yaanini soo romboon nit mu ne la diw sàngam mu ngi wax rek naan diw sàngam ni mu bonee moom daal nangam nangam yow doonte ne sa tur la tudd sax yow jàppal ne dafa am keneen ku muy wax ku bokkut ak yow rek loolu nag ak a jafe waaw koo xam ne buñ la waxul sax nga mën naa man lay wax daal di attaqué bokkut ak boo tuddee sa moom kon suñ tubaab li muy jàngal mooy su su la nit di jalgati yow bul dimbale seytaane dimbale seytaane comme seytaane moom daa bëgg ngeen fénkoo rek yow boo boo njortoon yow lay wax rek nga attaqué kon yow dimbale nga seytaane dalaa war na wax ba mu leer ne yow lay wax sax nga nga nga ne kon loolu la lislaam digle xudil afwa waamur bil urfi wa a'rid anil jaahiliina waaw di jéggale tey jëlale waaye koo xam ne ku leen diw nga sant rek ngay fëlañ fëlañ yi la borom wala farkat boo xam ne bul gaaw a mer gaaw a mer baaxul négal ba mu jot di nekk ba gis lu ko jar ndax réccu ko dana ñëw ndagam dangaa mer itam bul daal di topp ca mer ba daal di jëf mbaa nga wax njombe ku dégg na ci te mer mi it bu ci sax jullit du topp meram jéggale ak jéggaloo di càng mooy fayoo ay kon loolu la wolofarkat bi waxoon euh, bis topp nee na ngay liggéey lu mel ne ñu nekk ci bureau yi gi demee noonu nit fekk la sa bureau jox la kado ndax loolu ci ger la bokk waaw loolu ger pire la alei satu salaam nee na ku ñuy liggéeyloo di la fay bul nangu kenn jox la lu aju ca liggéey bi nga di ko jël léegi nag mën nañ koo tuddee trou ne waaye lam doon la doon rek da ngay dañ laa jël di la liggéeyloo dara ku la fekk jox la kado moo xam post bañ la falak yu demee noonu bul ko jël boo ko jëlee ger la da ngay dem di contrôler ay nit ba nga demee ñu jox la ca kado bul jël mukk ci àdduna ndax loolu mooy dëgg-dëgg ger ndax loolee ngay def moo tax ñu di la jox kado la waaye boo ko bàyyiwoon duutuñ la ko jox kon kay loolu mën naa jur leen mën naa tax la nga war na def doo ko def moo tax ñiy contrôler te jub suñu ñëwé loolu leen jox rek duñ ko jël maanaam duñ fa nangu sax lekk ndax loolu daa mën a ubbi yeneen bunt kon loolu ger pire la fekk la sa bureau ne la lii maa la ko jox sa cadeau la wala sama xarit nga wala sama dégg de loolu duñ ko nangu nee na kii nodd waat yi muy wax li muy firi kii nodd waat yi muy wax allahu akbaru yàlla rek ka màgg allahu akbaru yàlla rek ka màgg ashhadu an la ilaha illallah maa ngi seedee ne yàlla rekk mooy yàlla buum la goo xam ne nun ñoo ko takkal suñu bopp lislaam force kenn ci kaay dugg ci diine ji ba mu daan xeex sax da doon xeex ngir kenn ku ne ñu bàyyi la nga gëm li nga bëgg a gëm kenn ku ne ñu bàyyi la nga jàpp fi nga bëgg a jàpp ab jullit nag mooy def bis bu set lu gàtt gàtt dina waxal boppam juróom yoon ne yàlla li ma fasante woon ak yow li ma waxante woon ak yow tey laa ci gën a nekk mooy ashhadu an laa ilaha illallah maa ngi seede maa ngi feddali maa ngi dëggal ne kilifteef sama kilifteef ci yàlla rek la aju li mu bëgg laay def li mu bëgg ma wax laay wax fi mu bëgg ma dem lay dem li mu bëgg ma jëfandikoo laay jëfandikoo loolu nag li leen nit wax ko ba noppi di wuute lool ak waat yam wax ndax ndax léeg nga jullit ne yàlla iyyaka naa yow rek la ñuy jaamu boo demee ci sa liggéeyukaay ñu ne la fii bëgguñ ko fi julli nga ne ah kon ma bàyyi la ma waxante woon ak yàlla te ñëw ci yéen xam na ngay bàyyi ba wàcc di ko engrais lu ëpp def la ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy maa ngi seede maa ngi dëggal maa ngi gëm maa ngi wóolu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ndaw li yàlla yónni lim li mu wax rek mooy dëgg lu mu tere loolu la ñu war a bàyyi ndax yàlla na ko sant hayya ala salaa ñëw leen ci julli gi xayya alal falaax ñëw leen ci lii maye texe allahu akbar yàlla rek a màgg allahu akbar yàlla rek a màgg laa ilaha illallah yàlla rek mooy yàlla kon ki noddu waat yu rëy yooyu waat yu màgg la wax baat la yoo xam ne ki koy faral def noddkat alayhi salaam daf ne yowmal qiyaam VIP yi mooy noddkat yi waaye noddu mooy loo xam ne seytaane amul kum sëñ ta waaye kii nodd su ne allahu akbar fu seytaane mën a nekk danaan bëxër ñépp daw di daw di daw di daw ba déggatul nodd ga mu soog a taxaw kon lu rëy ngi noonu lu màgg noonu fu ne ni nodd sax ak leqam gis ne ni niróo fu ne ni boo dee leqam maanaam boo ne nodd boo ne allahu akbar seytaane samp xelam soo dee liqaam boo ne allahu akbar tàmbalee julli seytaane ñëw kon nodd lu seytaane ragal la fu ne ni sooy nodd seytaane daw soo tàmbalee julli seytaane ñëwaat nekk sa xel mi waaw ràkk nga ak yow fa nga war na dem da nga koo fàtteeg di waroon nga ko woog len lu ne mu nekk te booy noddu du la jege mukk ci àdduna kon noddu lu am doole la wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan am na sax ñu ne loolu lay junj beneen bis nee na ndax lislaam jàngale na soxna su fay ak fay ndax lislaam xam na ko soxna su fay ah soxna su fay day su fekkee mooy ku mer dem seen kër la ca lislaam jàngale woon rek mooy nu xool li tax mu mer su fekkee ca soxna sala ñu waxtaan ak moom ne ko nga nekk jaam yàlla du fo ndax moom la alxuraan tuddee buum gu dëgër gi wa axadna minkum misaaqan xaliisa su dee ca góor ga la ñu waxtaan ak moom moo tax lislaam bu problème amee ndax fay mooy problème am na rek bu problème amé góor gi la l'islam sante mu régler ko ci kër ga kenn du yek su dé ba génn ci mbedd mi moy soxna ci dem nu xol su féké góor geey togn ñu waxtaan ak mom fexé ba loola dak su dé jigéen jee togn ñu waxtaan ak moom fexe ba loola dak su yalla dogalé waxtaan nañ ak ñom ñaar té te solution ta am nak a ah, su ko défé nak ñu waxtaan ak kilifa yi ndax tay ji bu problème amé fi ñuy jaar bu ñu takk sëy buñ fa jaaroon sey yu bari duñ tass ndax booy takk sëy da dem ca ndey ja danga dem ca baay ja ñu waxtaan ak bàjjen yi waxtaan ak nijaay yi nga dajale kilifa yi foofu fépp nga jaar sëy soo ko façon moo tax booy bëgg a fecc sëy boo jaaroon foofa dana ci am ñu yàlla may xekk ma ba suñu waxtaanee yéen jàmm rek moo ciy mujj waaye fay daal moom tekkiwut ak fase fase moom borom kër gee ko dogal waaw buumu sëy lislaam ci loxol borom kër la ko teg ndax dafa jàpp ne borom kër mat na dafa japp ne man na yor japp ne ne tane na ba ndax bu ko joxon ci jigen nu kon ñaari fan ñet rek mu ne fasena nu kon mom ben sey bi am une semaine du am moo mu tek ko ci loxol borom keur japp ne mom goor la xel mi xawna ñor mu ne ko ki mala ko denk waaw kon fay gi ñuy def su moy problème bu am l'islam andi na solution waye nak tekki wut fase ndax fase mom borom keur rek koy def suñu demee ba gis na ne problème bi solution mënu ci am bàyyi mu continuer ëpp naa def ndax la muy yàq maanaam fase ya koy gën fase ya solution la fu ne ni lu garaaw la waaye solution la ndax ngeen nekk ci kër ga bés bi suñu di leen dégg xale yi seen xel di yàqu duñ mën a jàng seen avenir yàqu loola fase ya ko gën a seet donte ne fase nag li muy li muy yàq ci xale yi bari na waaye nag bu demee ba toll fenn fi moom dëgg-dëgg bu fa nekk di xoñoñal du fa nekk naan du ma la téye du la bàyyi bu fa nekk naan tey da nga xam ne yow la déedéet loola ëpp naa def ndax yàlla mi leen boole te den surveiller te mooy seen goro ndax ci kàddu ngeen àndee mat naa bàyyi xel ndax euh, innahu yaalamu sirra wa axfa lépp la xam nee na ndax lislaam may na jigéen mu liggéey ndax waaw ndax lislaam jigéen sëñ naa liggéey ci lislaam waaw sëñ naa liggéey ndax alayhi salaatu mi nga xam ne mooy jëmmi lislaam moom de soxnaam doon doon na liggéey xadijatu bintu xoolidin donte nag gannaaw bi nag dox nañ ba ñu bari taxul mu gënal leen waaye kenn ku ne yaay xool sa situation ak sa tolluwaay rek alayhi salaatu salaam soxnaam soo soo sa doon liggéey de amal na ko njëriñ lool xadija bi ko alayhi di di di jël daa fekkoon muy liggéey moo fekk di si jamono ji ah bu fekkee jàpp nga ne mën naa woy liggéey ba te du la dara yàqu dara ndax jamono tol na fa te alayhi ko jigen ja nek ku ñor amal ko njariñ lol bu bëccëgee muy surga manam bu soxla joté muy njaatige bu liggéey joté muy surga fo alayhi salatu wasalam mo soxla financement kharija khalisam du ko fek du ko fekke bimu ko takke sax daf ko ne nabi mu ne ko mu ne ko ma upp alal ci mak mu ne ko mu ne ko bëgguma mom bëgguma nga mom ma may moma dara manan li mako mom dama bëgg nga boole ma sama alal yiif moo tax bi ko takkee bu alayhi salaam comme moom daan dem ca xuntima ñëpp dégg nañ ko daan wéet léeg mu dem fa am fa ñaari fan ak ñett suy dem Xadija wut lépp lu muy soxla moo xam tàndarma la moo xam soola ak meew moo xam cere la muuraake lépp mu wut ko defal ko ci ay jumtukaay mu yóbbaale nga xam ne mën na fa am ñaari fan ñetti fan te du soxla dara ci biti loolu soxna soxna sa tànn rek ko man moo tax na yaay xool waaye am soxna muy liggéey nga bëgg wéeru ci moom it nag euh, du jom su fekkee yow mën ngaa yëngu ci dara ba mën ngaa yëngu ci dara moom kay la cay tane mooy la muy liggéey na dem ci ay soxlaam alayhi salaam mu mu woyofal ko waaye daal li lislaam di tere mooy soxna génn di dox lu dul farata wala di jaayu ci kanami ay góor wala di eh, def lo xam dal day jur bàkkaar waye bu de liggey genn doxé farata génn liggéey loolu lislaam terewu ko benn bi topp nee kuy julli ci kanam imam wa su fekkee ngant ko waral lu melni ni ji dafa fess ñu laal ci kanam imam wala imam tamlé julli gaa yi sàppe sàppe ba gannaaw gi fess mais naa sàppe ci kanam té du yaq dara looloo fi ruusanti woon ci laaj lu ci leer ci yàlla lu ci gàtt ci li nam xam-xam la in uridu illa al islah mastrato ma tawfiqi illa billahi wassalaamu aleykum